Ok, je di nuyu ziar di di euh, au point par à l'arrestation de Pape Alé hier chez lui euh, durant toute la journée Pape Alé était euh, chez son médecin traitant xam ngeen ne biñ ko bàyyee bàyyam négandiku yaramam te chaque jour que je fais daf doon dem ci médecin traitant pour suivi médical demb gannaaw ba mu am les suivi médical bobu ba ci ngone mu ñëw ci teud ci kërëm di noppalu juge du deuxième cabinet Mamadou Seck yëkëti mandat damné jox ko ay nit ne leen dem leen jëli pap Alé indi ko ay nit ñëw ci kër pap Alé di harceler jabaram brutaliser que devant ses enfants ils ont entre 5, 6 et 10 ans devant ses enfants ils ont brutalisé le gars pour dire que beaucoup... ko dama dinañu euh, au courant de la journée à travers un live avec plus de détails mais je bëgg wax Macky Sall pendant que yangi yabal ay nit ñuy dem di brutaliser ay doomu euh, domu jàmbur si ay kanamu domam di brutaliser jabaram diko harceler pour ko jël pour jël jëkërëm yóbbu pendant ce temps là say dom ils sont nourris blanchis et sécurisés par l'argent du contribuable sénégalais dinañ ci dik nak ci lu gëna yaatu au cours de la journée mais ma bëgg la wax ben affaire mu lèr moy nguru yalla suñu borom mo du jeex sa bu fekkee da nga am doole c'est parce que ben la jox nguru ngay jël nit ñi di troxal di brutaliser sen ay dom di len traumatiser suñu kanam la nek benen bi ci tegu moy sénégalais yi lay waxal li nek di xew di dal ci nit ñi

xaaruñu ci leneen lu mandat de dépôt xaaruñu ko ci mais nak attention bu jàkkaarloowee mom ba paré nous allons revenir à travers un live pour donner plus de détails sur ce que Pape Alenia a enduré dernier durant ces dernières années ba fi ñu yegg si tey yéen kaso mais ce qu'il a enduré durant ces dernières années par rapport à ce régime de Macky Sall ci li nit ñu yëgul nit ñuy tegul seen bët mu dund ko ci ay métit dinañ ci dikk tey à travers un live maa leen di sant di leen gërëm